miroir euh, régional dañuy doxantu ca diwaanu euh, Bawal foofe nag ñu waxtaanee ci guy euh, ñu nag garab la goo xam ne la mu am ci ay meññeef bari na waaye itam nanu ko mën a jëfandikoo bari na moom buy ana lan lay faj lan moo ko tax a jóg tontu lii ak Babacar Diouf ci lu yàggul dara ay bés bi ñu génn rek nguur senegal moo tànnaloon boppam guy def ko garab gi mu màggal ci at mii ci bés bi mu jagleel garab guy rëy lool te tamit gudd lool wante bari njariñ lool ci askan wi nga xam ne ñoom ñooy dund ak moom maam Samb moom la ñu xamal communicateur traditionnel la. ne ko guy gi tàmbalee ci reen bi ci suuf ba ca cat la ca kaw lépp njariñ la ndax première fois bu nekkee guy bu tuuti nga xam ne jógagul meetar am na benn reen boo xam ne bu boobu sax bul reen boobu nee naa ko boo ko xoolee ba mu set wànnet dina ko faj. kon kooku tàmbali ci boobu njëriñ bu demee ba nekk mag mën a meññ am na lu ñuy wax mbortaan mbortaan defe naa am na xele yoo xam ne xam nañ ko waaye am na xele yu ko xamul mbortaan mooy euh, bul bu wert boobu muy meññ def de géen bu gudd def bal léegi ko mbortaan boobu bu tojee am na benn pepp ceeb boo xam ne li pepp ceeb la tollu nekk ci biir kooku boo ko tasaaree dina faj tooy dafa ratax nga jël euh, xoolit bi xoolitu mbertaan bi li ñun ab seet ñu ko naan wax nga fajarte ko boo ko diwee ci say loxo dina ko nooyal. yemul foofu rek ndax ndaxte guy danañ gunge askan bi ci ni nuy dunde ak ni nuy yore seeni jur kon tamit saafara ci yenn jàngoro yoo xam ne nii dafa faraloon di tab xale yu ndaw yi nga xamante ni ay perantal lañ. am na lu ñuy wax ngolof mooy lu nooy li ci biir kooku danañu ko. dëbb ba mu nooy ñu def ko ci kaas bati ko jox ko xale biir buy daw dina ko faj. guy yemul foofu rek ndaxte ñenn ci askan wi danoo gis ne guy yii ñenn ci maam yi nga xamante ni dëddu nañ foofu la ñu làqu te bu nu bëggee wax ak ñoom fekk ñu dem xool leen maanaam dafi tuur. ne ba sunu doom yaram tàng wala ñu gént gént yoo xam ne ragal nañu ko ñu dikk suuru. njëriñ yooyu mu am yépp nag tax. ñenn ci askan bi ne duñ ko bàyyi mu naax saay guy daal dañ koy toppatoo Hélène Thiaw kenn la ci ñi nga xamante ni danoo bëgg guy dund ba faaw. ba tey disparaître soo leen ko xoolee suñu ginnaaw am na ñetti guy yu nekk suñu ginnaaw ak fii ñu taxaw fii ñu taxaw nag bëgg nañ mu doon place publique moo tax nag ñi ngi interpellé autorité dëkk bi yëpp muy monsieur le maire muy monsieur le préfet ak ñëpp ñi nga xam ne ay bonne volonté lañ bëgg ñoo jàppale. mën ñoo jàppale ci fii nga xam ne nii ëpp na juróomi weer ñi ngi ciy góor góorlu su ngeen ko xoolee amaguñu sax luñ ko tëj kon avec les moyens de bord maanaam li ñu am loolu lañ ko tëjee nii def ba fii maanaam kenn du fi tuurati mbalit fii ma taxaw nii sën la woon kon maag xale yi nga xam ne ñoo nekk ci koñ bi jeunesse bi taxaw nañu pour mën a defar fii ba tey ñu mën fee toog. mu nekk garab gu gudd. garab gu rëy garab goo xam ni tamit bari na njariñ lool ci askan wi wante dafa mel ni ñenn ñi fi mu nekk nii dañ koo bëgg a fàtte ba tax ñuy xalaat ne danoo xamul dëgg-dëgg njariñ guy buy njëriñ kese la euh, muy garab goo xamante ne si euh, daanaka loo ci jël mën na laa jëriñ bu dee euh, buy bi pëndax bi moo xam loo ci bëgg a def bu dee xob yi sax mën nga ko defar laalo wala itam nga faj ci leneen Babacar Diouf moom la ñuy àndal ci diwaanu Bawal Babacar ñu ngi nuyu. mu ngi lay noonu euh, gis nañu élément bi nga xam ne def nga ko ci buy lan nga ñu mën a indil guy bokk ak euh, en tant que garab lan nga ñu mën a indil complément d'info soxal boobu le reportage. waaw li ñu ci nemeeku gannaaw euh, paa bi nga xam ne ñoom ñoom lañ mi yëpp na leneen mën a yokk rek moom nekk ni dafa mel ni réeré kenn ko comme nañ doon dañ koy nekk loo xam ne réeral am na solo lool ndax mu euh, comme ni ko nguur gi defee ñu fexe guy euh, ah? dafa mel ni dégg-dégg bi taxu koo neex ndax euh, mën ngaa wax tuuti mu gën a xaw a leer bu ko defee téléspectateur yi dégg la waaw nekk ni daal soxna Faty li ñuy nemeeku ci mbir mi moo di ne guy dafa fekk euh, dafa nekk garab goo xam ne nii mu ngi bëgg réer fi mu nekk nii ci askan wi ba tax euh, ñenn ñi daal nee nañ euh, war nañ ko gën a ñoŋal gën a fexe mu feeñ ci li nga xamante ni moo di askan wi parce que nag fi mu nekk nii ñu bëri dañ koy gis ci àll bi di ko dagg di ko yàq te nag guy njëriñam yemul fii nga xamante ni moom moo di lekk ak naan gi rek wante ci jur gi sax wala sax boo bëggee wëgg ca teen ba lu bëri ci goj bi nga xamante ni moom ngay def raw ko ci li nga xamante ni mooy xasum guy gi ci lañ ko doon defee nekk na garab goo xam ne ni bu am solo la wante daal fi mu nekk nii bu ñu moytuwut dina naax saay te nag loolu baaxul ci askan wi soxna Fatick. commencé sentir sax euh, Babacar ndax lu ci mel ni bu njëkkoon pëndaxu buy ni nga ko daan gisee gisee wooto gisee woo ni léegi te yaakaar naa liñ la ciy jaay sachet bu ndaw 2500 ci grande surface yi lam la mën a jëriñ bëriwul kon euh, lu mat a bàyyi xel la ñu jeexalee rapidement ak mbas bi ak tolluwaay bi gis nga démb euh, journée de tous les records 207 contamination 115 cas communautaires cas communautaires yi ñu ngi wéy foofu ci diwaanu Bawol Njaareem jàpp Bambey lan lan mooy tolluwaayu mbas bi jamono ji waaw ñu sant yàlla parce que démb moom euh, journée record la mais tamit journée record la ci région bu Ndiarème parce que nag benn cas kott la no am sax dafa jaaxal bu bëri mu di département bu Bambey lañ ko nemmeeku mu di département boo xam ne nii ba mbas mi tàmbalee léegi benn cas rek lañ mës a am mu di benn cas contact boo xam ne nii jàpp nañ ko fii nga xamante ni moo di Bambey wante ci euh, Diourbel jàpp Touba Mbacké amul benn cas boo xam ne nii euh, nemeeku nañ ko ne am na fa ci journée bu démb bi mu di journée record ni mu nekkee journée record ci Sénégal mais tamit journée record la ci région bu Ndiarème parce que ni ma ko waxee rek ñaari département yi nga xam ne ñoo ci gënoon nemmeek mu di Diourbel ak mm. euh, Mbacké mm. amul ci benn cas mm. benn département nga xamante ni ki doon fekk ba léegi nag moom moo am benn cas boo xam ne nii jaaxal na ñëpp te tamit euh, ñu ngi ñaan askan wi ñu gën a sàmmonteeg mesure barrière yi nga xamante ni moom mooy tax li nga xam ne moo di mbas mi duñ ko nemmeeteeku fi nga xamante ni moo di Sénégal wante sax ci région bu Diourbel bi nga xam ne fi la nekk soxna Fatou. très bien sant ko bu baax gërëm ko di ko ñaanal très bonne journée di ko ñaanal itam askanu Bambey c'est vrai que journée démb bi moom yaakaar naa ni euh, journée de tous les records la 207 contaminations 115 cas communautaires.